دعا صفي الإله مريده في الإله دعا صفي الإله مريده في الإله خليفة عن أبيه الحاج عبد الإله دعا لما رآه خليفة للإله دا صفي الإله مريد في الإله خليفة عن أبيه الحاج عبد الإله دعاه حال اضطرار بسر ذات الإله يرجو إجابة منه إذ كان باب الإله فإنه وإلهي وسيلتي للإله قلبي يفاض عليه فالشيخ فيض الإله وأرتجي نيل جاهي كجاه آل الإله وحمل نافع علم عني بحول الإله فهو الولي التقي نقي سر الإله إني لو عبد عبد يزقعنا عبد الإله أحب كل محب أحبه للإله مدعته بالخواف حبا له في الإله أرجو مديح له أن يروز عند الإله رمز الوجود وسر الأكوان داهي السلام عليكم ماغي سانت نيب ماغي نوي نيب دكرب گرم نيب دي سنتي وا ريو دي سنتي وا كومين دي سنتي واخ دëgg yalla wa نخمني نعم لما يالا بولي لتي دك damay wax ne ndakaaru fu am naa faruq maa ngi ciy sant yàlla bu baax waaye fii ci kër Moussa nag mooy suma dëkk bi ma gën a bëgg lépp lu ngeen dégg na am naa ko ndakaaru fii ma dëkk muy kër Moussa moom ma fa gënal maa ngi sant yàlla bu baax nag ci bi nga xamee ne maa ngi sant yàlla bi nga xamee ne ñi ma àndal bañaluñ ma dara waaye yéemaluñ ma dara muy waa dëkk bi nga xam ne ñoom laa bokkal benn deret amul lenn lu ñu mënul ci amul lenn lu ñu bëggul ci man lépp loo xam ne bëgg naa ko rek yaakaar naa ne damay fekk rek defal nañ ma ko pare am naa fi lu ne ca tool sax ren naa boo xam ne xaw ma fu tool ba ne wallaay dañ koo defal ba mu pare ñu di gerte gi na ma lii nga fi am xaw ma sax fu tool bi mosuma faa dëgg sama loolu nag boo ko amee ci dëkk boo dëkk nga xam ne yaa ngi ñoo bokk benn traite loolu da nga leen war a sant bu sant jote bon dëkk bi sëñ suma xarit la suma rakk la waaye nag suma sëriñ la it nag waaye moom sëriñ bi da koo nanguwul te man ma nangu moom day wax ne yow alaaji yow suñu mag nga fu ñu jëm rek yaay si di lépp lu ma dugg rek suñ la ca gisul nañ xam ne loolu duggaguma ci muy suma nit ku baax koo xam ne. yàllaa ma booleeg moom gannaaw bu ma bàyyi alaaji Omar Niass booleeg moom ba pare ndax ñoo bokk benn sëriñ man ak moom benn sëriñ la bokk waaye ñu boole ñu boole koo xam ne moom mii teetu ci dara lépp rek lu mu xam man la koy waxat lu mu décidé su ma ko ne du nii da koy teg ci suuf lu mu bëgg a dana ma woo ba néegam ñu bokk ko waxtaane man ak moom bu jubee ñu def bu jubut ñu ne nañ bàyyi ci suuf te li may wax nii ñi ànd moom yëpp xam nañu daa daanaka li nga xam ne mooy benn wàllam amul luñ dul jokkoo. xam na lépp su demee sax ba xam ne am na ñoo ni dafa naa Papa Kébé war ngaa ñëw bu ko defee ma ñëw mu rafet maa ngi ko ci sant bu baax di ci sant astaf bi yëpp ñu ànd ak yow ñëpp daal sa ñaar wax dëgg yàlla dañ mooy woo foo newut di wax man lu baax foo newut di jëflante ak man lu baax foo newut man nag fii mooy sama kër kër googu mën a fekk fii yaa gën a bugg fii mooy sama dëkk samay kilifa ñu ngi nii tey lii la ñii laa ci kilifa kii mooy suñu nijaay moo indi woon sama bàyyi ci dëkk bi moo ko bindoon ka ci des mooy sama mag ñoo bokk ndey ak baay mu ngi nii taal bi xam nga ko ka mooy jëm fànn ñoo bokk benn ndey xam nga ko Mbaara Ndiaye ni ñoo bokk benn baay bon fii awma lu ko ëpp waaye wutu boo koy nag wallaay am naa almadi waaye fii moom ma gën a almadi bon loolu maa ngi ci sant yàlla bu baax bañ a bañ a guddal rek di ma Mahmoud Fane mën a taxaw ma nga ne mooy sëñ Bilal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm yàlla yàlla dimbal Abdoulaye Sarr mii dëkk Kër Sëñ Dieng ak Mor Sall Dramé ma limee daal day métti waaw ndax ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk yàlla ak sa bakkan moo ko fi tax a ñëw tey ndax barki te suba ba léegi maa ngi fi te ñëwuñu woon bon bu ñëwee rek li ma leen yaa ngi ñëw moo tax kon maa ngi sant ñëpp ci liñ la teeru teeru si la di nuyu élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ñu jàng nga gis ñëpp kenn ku ci ñu ci bëri sori ba jimmi yaakaar laajoo naa ko mu ne bu soobee yàlla déwén mën naa moom kaan bon nag loolu yaakaar la loolu yaakaar la bu baax ñu ngi ciy jàppalante maag moom it ci daara ji yaa yoo xam nga ma ci daara moom yàllaa ko def sama xol bi kon loolu maa ngi lay présenté xale yi nga ñaanal yàlla maa ngi bëgg nga ñaanal jéeg ji nga xam ne <clears throat> amaguñ wujji ñu bëgg a am wujji yàlla may leen ko ñi bugg a am beneen kii yàlla may leen ko góor am beneen jabar yàlla may leen ko ñu bëgg am doom yu baax it yal na yàlla may leen ko yéen daal lépp lu leen yàlla defal ne leen wóor ne danaa ca bëgg ndax maa ngi na bokk sëñaar yi ñii mënuma leen fay waaw ñii nit ñu baax a ngi yu baax a ngi nii baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu bëri na. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ maa ngi lay siyaar di leen nuyu la dalal sa wàccuwaay wi muy Kër Moussa de yaakaar naa ne. doo ko laajte moom fii moom xam nga ko fii moom xam nga ko xam nga ñu la fi jiitu woon nag looloo tax seen barke ba moom mu ngi fi yow nga ñëw man fee ñëw Alaaji Babacar fi la daan wàcc Alaaji Omar Niass fi la daan wàcc fi lañ daan fekk kii ak suñ baay waaw ñoom ñëpp ak El sa papa ñoom ñëpp ñëw nañ fii ci kër gi xëtt bii tuut ñëw nga fi tey waaye doo fi gan de fi nga dëkk de fii mooy sa ëtt yow dëkk boo ma la mas a dégg rek dama ne ah ay seegul de fii de fii lay dëkk ndax alaay yow ma ña fii la daan ne alaay Babacar alaay Ibrahima alaay Amadou ñoom ñëpp fii lañ daan wàcc ci sama papa di leen teelal ca Lamar bu ñu de rëccee dem kër euh, Ousseynou Dieng ci alaay Matar Dramé fa lañu daan ne bu ko dem dugg Kébé waaw

war ngaa xam kii ndax lépp loo nekk rek kii moom jiitu woon na ci bu yàgg waaw mooy suñu sëriñ di moom lañ dalal fii ci dëkk bi kon nag leen siyaar sëñ Dramé maa ngi leen di nuyu di leen nuyul waa Kaarang yéen ñëpp maa ngi leen di sargal di leen siyaar yàlla na yàlla defal jàmm defal sutura dëkk bii rek tey jii nii kontaan naa fi lool man na yëguma kon maa ngi woon Samba Gueye di toog di la xaar ba toog mais fii sama kër la fii def naa fi lu ne gàmm naa fa gàmm gu ne Sidi Lamine fa la ma mujj gàmmool mel ni neen Sidi Lamine la ma waxoon mooy dëgg tey jii fi mu ne nii lépp lu ñoo def ci àdduna foofu lañ koy defee ji foofu nga jëm tey jii man fa la sama kër nekkoon maa fa taxawoon yàlla nañu yàlla defal jàmm yow waa dëkk bi nag bégee nañ la lool ndax fajar ñii yëpp yaa leen tax a jënd a jënd fajar koo xub bi mu ngi déglu aadi loolu sant yàlla la ñii ñëpp jënd nañu rajo ñi si nekk bëri bëri maa leen may rajo <laughs> de damaa bëgg a déglu aadi taxaama la ma de man la xaaral ma dem kaara jëndal la rajo indil la ñoom ñëpp yow la ñoo déglu di la bëggee guddeeg bëccëg li ngay wax rafet na waaye aadi yàlla la yàlla sàmmal boppam yàlla yàlla xaaral la boppam sa ànd yeeg Keeba Njaay lu ma neex la yow doo may gis man xam nga lu tax doo may gis fii maag moom benn la ma benn képp lay fu dem rek mën naa faa ñàkk dem ndax fu mu man la fa demal fu dem dama ko ne noppale ko naa man ndax fi mu nii mun naa ma ne ko wax dëgg yàlla dama yow maa la xaw a mag tuuti damaa fekkee mag ña daan ànd ak ñoom kon nag fi mu ne nii yow bu ñëpp ñëwee aadi di ànd aadi àndal ak moom aadi daal yow Kéba Ndiaye ngoog man la ma la dénkoon ba léegi mu ngi ci Kéba di leen ànd nga di waxtaan xel mi na te añaanut soxorut Kéba mii xel mi rafet na te soxorut añaanut lépp lu la teg boo liggéey boo gisee da nga ci gis sa bopp moom noonu la ko yàlla bindee dëkk bii da nga gis tey jii tiraanga bu am fii la koy wàccee fii de lépp de lépp luy soxla su ma keebaa yéegi subaa ngoon ba ci jàkka ji xamul lu mu fi du def lu ne mu ko fee def di ko def ci mbokk gi maanaam maa ngi koy ñaanal yàlla rek taxawaayam yàlla dëgëral ko bu baax a baax a baax may ko fan bu gudd loolu de laal ni ñaanal dëkk bi yàlla fi yàlla wàcce yiw ñaanal la waa dëkk bii yàlla boole leen ci benn pas-pas bu baax a ngi nii ñoom benn lañ dëkk yi rek lañ am ci kilifa moo ñu fi nekkal kon nag bu ñu yëfoo ñu ñaanal ne ko yàlla mu gudd fan lool te maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay la waaw asalaamaaleykum sëriñ bi. ñu ngi lay nuyu. dana siyaare. dana sant bu baax. te dana gërëm. ndax yoon li nga xaw ci nga doomu aadama yi yëpp. woowu yoon nag yoon la woo xam ne ku ci xaw boo dëpput xaaja na nga jëm. xande gi ñu ànd ak yow nag. sant nañ ci bu baax gërëm nañ ci ànd gi nga ànd ak Keba it nekk nañ fa tabaarakallaa ahsanal nag sant ko bu baax gërëm naa ko ndax nit ñu baax ñi rek la ànd ak te yonent bi daf ne wa kullu suhbatin lillahi fa axiruha alhamdulillahi la alamin képp koo ànd ak tax yéen ñëpp da ngeen wax alhamdulillahi rabbil alamin waaye képp koo fi ànd ak te du yàlla rëccu rek la mujj dem na ba bu yomal xiyaamee bu yàlla fobee siraat teg ko ci buti jaanama ñëpp daje iblis dana jóg taxaw ne nit ñi suñu borom de dëxaloon na leen dëxal dëgg noon na ku ko topp mu yóbbu la ajana la waxoon tey mu def ko man noonu naa leen topp leen ma daa leen yóbbu ajana dama doon fen booba kenn yedd kenn ku ne na yedd boppam dama doon bokkaale xooleen ngeen xuy si ba maag yéen kon nag sëñ aadi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci yoon wi nga xaw ab tabaarakallah boo ko bawul insha allahu xam nga fa nga jëm wa man arada an yahlama maa lahu hinda laahi falyansur maa lillaahi hindahu képp ku bëgg nga xam yoon bi moo xaw ah fo fa mu jëm yomal xiyam na seet la boo jëf soo wóoree ne li ngaa jëf nii ama yàlla yonente bi xaw nga ne xaw nga yoonu àjjana te doo ko wàcc bukk bee ak su ne wóoree ne neexut yàlla ak yonente bi xam nga ne aw nga yoonu safara doo ko wàcc ba àgg kon nag lu ñuy góorgóorlu ci jaamu yàlla te sellal dinaa leen de wax ne jaamu yàlla gu sell liñ bëgg ci la nekk fan wa gudd wasa wu yaa day dem xajana ci jaamu yàlla gu sell rekk la nekk ndax jaamu yàlla gu bu sellee la nga waroon a tudd ca bàmmel ci la ñuy jël la bëri teg ko ci sa fan sa fan gudd sa wasa yaa boo dee dem xajana li ñu bañu ñett la fan wa gàtt wasa wa gàtt day dem safara ana lu koo maye mooy yàlla wallahi ku ci nuur ci mooy yàlla sanala kulli haalin sa wasa day gàtt safan gàtt te bo day safara nga jëm kon na yalla ñu yàlla mu fa ci loolu bi jaay Seydou Diop ñu lay sant bu baax ñu lay gërëm bu baax. alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sahbihi wa mbokki dëkk bu tedd bi ñu fekk fi di Kër Moussa di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di nuyu tamit ñi fi dikk te dëkkuñu fi dëkk ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi war Kër muusa nuyoo leen nuyoo ak waa aljana ci aljana muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di jiital ci nuyoo bi kilifa gu màgg gi te yàlla jiital ci jotaay bi di suñu baay di suñu kilifa di suñu sëriñ di sëriñ Bachir ñu ngi koy ñaanal yàlla na fan wi gën a gudd yàlla na wér gi gën a sax. <coughs> yalla na jàmm ji gëna dolle ko ndax kaddu yi mu wax ñun min nañ ko ci suñuy nopp ci jotaay yi daan am fi dara ko ci di ñaareele suñu nuyo ci suñu xarit suñu soppé di alhaji taalibe njaay di kilifa go xam ne ku rafet xol la te li ëpp solo ci nit moy xol bu xol rafetee donté and nak jëf du néw mo gënal yalla xol bu ñaaw donté and nak jëf ju jëf ju bari <coughs> mom nak xolam rafetna lu ëpp fukki at ak boleh la ma booleeg alaaji Keeba Njaay mi booba ko mang ko fekk ci néegam ba ci kolo bank mu ni ma dana la ak alaaji fekk ma defi émission RTS ba ñëw sama diggante ak alaaji Keeba alaaji taalibi mii moo ko dox kon lépp lu ci juddoo ci yiw bala ñu caa yàlla sédd moom mii la cay jiital ci sédd ko ku baax la ku rafet xol la ku mën a boot la ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak jàmm ju sax jagleel kilifa yi dekk bi yeb doree ci iliman bi ak borom dekk ak notaabalu dekk bi yeb dora nak tëjee suñu nuyo ki sabab suñu ñew fi te ñew bi nekk ñëwab sof way nekul ñëwab sos sof la koo xamne mo ñu jitu ñun ñi ci suñuy bay motax sax wacc ci kër gi ku fi ñew sens la bu reuy noyyi ci jaww ji ku fi ñëw sens la bu rëy ci yow ndax yàlla mën na laa dimbale nga dëgg sa tànk fu ko baalaaji Omar dëggoon wala nga dëgg ko fu ko baalaaji Babacar dëgg wala nga dëgg ko foo xam ne Baay Alaaji Ibrahima wala Sidi Mouhamadul Amin dëgg na fa tànkam te nit ñu baax ñooñu fu ñu dëgg seen tànk ku fa dëgg sa tànk tànk bi nga ñëwee woon ci dëkk bi dana wuuteeg tànk bi nga ñibbee ñaareel bi tamit gaa yi yàlla yooyu seen noy yi fu ñu ko sànni soo ko noyee dana wuuteeg ba nga ko noyee gut moo tax kon moo tax kon loolu ñun suñu sens la ñëw fii ci dëkk bi suñu sens la moo tax kon yoonu sof la waaye nekkul yoonu sos kër gi Baay Laaji Omar ak Baay Laaji kër ñoo ko rëddoon suul fi lañ fi daan suul ñaan fi lañ fi daan ñaan gannaaw si gi ñu wàcc si fi ay yoon fii mun nga wax ne ñii xalawoon ci Baay Laaji Omar comme ni kër Alassane Diallo mu ngoog nekkee miixa. kër gi gent uh-huh. uh-huh. uh-huh. mu ngoog. bi ma ñëwee kon loolu tekki na ci. ne lu yàgg la. ñaareel bi Alaaji Keba ba mu fi def bisam bi fii. yëgal ko sëriñam suñu sëriñ Mawlaay Alxaaji Omar boobaak léegi lu mu ëpp na fukki at man mii la yebaloon ma ñëw fii wutu ko fi maa fi defal waxtaan wi lu ñàkk ñu bari dañ koy fàttaliku kon ñëw gi ñëw ak sof la alaaji keeba alaaji taalibe ñu ngi leen di sant ndax nit amul lu dul cosaanam suuf nga xam ne moo njëkk a taawu sa bop arab yi di ko tuddee masqatu rasi kenn ko koo ben souf rawati na muy suuf so xamné di nga juddoo mo ñëk gatandu sa bop bi té yalla na yéex bo génné aduna li ngay ñaan ñu denc la ca sa souf ku ko yalla jox ak teranga joo mëna am waroo ko yemaleeg dara lolu muy bëgg sa tosan ci la yonent yàlla Muhammad ray roy ay saabaam ci la leen yar moo tax dañoo bëggoon màkka ba bañ fa gëjee juróom benni at nekkoon Madina yàlla dogal xaswatu Xudaybiya ñuy dem màkka mbir fomm ñu bari dañoo tayal ba leen yonent bi santee sax dañoo bañ ne leen watu leen ngeen wacc seen gëlëm ñi ñibbi at Madina dugg màkka du mën a nekk ren ñëpp ne yaas ngir tayal yonent bi ne aw xeet naka la ñuy texee seenu yonentu digal leen te defuñu umu salmata jigéen gu am xel la ne ko wallaahi ñu liñ leen digal seen yaakaar a tas dañoo amoon yaakaar ne tey suu si taawu seen bopp yi ci judd fa la ñu fanaani tey yaakaar googu ñu amoon nag mu tas moo tax ñoom ñëpp ñu tayal yow daal li ma lay digal bul waxati kenn ne ko watul yow watul rek boo watoo bala ngaa pare ñëpp watu ci la yonent bi woo ki koy wat ñu commencé ko wat avant muy pare genn wàll ga rek saxaaba yi ca des yëpp wat fekk moo leen waxoon la tadxulanna al masjid al xaraama insha allahu aminina muxalliqina ruusakum wa muqassirin bu jigéen nag ñu ne yaa ñu waxoon dañu dugg ci dëkk bi wër kaaba gi dox safa ak marwa watu ñooy duufu duufu mu ne maa leen waxoon ndax ren laa leen waxoon dana xam li ma wax foog mu xam may waxuma leen ren nañ dëpp ren lañ ko bëggoon mais du ren waaye ca déwén sa ba ko yàlla dogalee bañ demee ba jub màkka dañoo mujj di tibb ci suuf sa di ko fóon ngir bëgg seen cosaan kon bëgg sa cosaan ci lislaam la bokk am na sax xadis buñ keree du xadis mais wax ju wér la ne xubbul watan min al iman bëgg sa réew bëgg sa dëkk bëgg sa gox ci gën yàlla la bokk dañuy askan wi sax ñu doon tuddee ko wax mais du xaddiis mais nag bu nekkul xaddiis tamit wax ju wér la wax ju wér wér ndax nit ki góorgóorlu ba ëppale ay mbokkam ci wërsëg mbaa mu góorgóorlu ba ëppale leen xam-xam mën naa ne de waaye li mënta ne mooy góorgóorlu ba ëpp leen góorgóorlu ba xëppale leen di mën naa am waaye góorgóorlu ba xëpp leen kenn mënu ko kenn mënta xëpp say bokk kon alaaji keebaay yëpp nga ne boo xëppalee say bokk ci wërsëg ci dogal ak yàlla xëppoo leen alaaji taalibe yëpp nga ne tamit boo leen xëppee wërsëg xëppoo leen ñàkk leen a xëpp a tax ngeen def fii lii ñaareel bi nit mën naa góorgóorlu ba raw ay bokkam waye nak bu wàññee ab doxam ba ànd ak ñoom mooy ëpp sax yonentu yàlla Moussa kat dam ko defé yakamti sama borom nako andal ak say bokk ñu ma may len audience mu yakamti dem mom kenn yalla nako ko an sa bokk yi tax nga bàyyi ma ajalaka an qawmika ya musa mu ne qala la ala athari kum la ala athari ñoom dañu ñëw dañu dañoo gu rek yàlla ne ko tey ma natt la natt boo xam ne foog nga delluwaat ba ca ñoom sa daara ji nga bàyyi woon saay-saay ba di Moussa Samir yàq na ko sa gaa ya nga defaroon ne ngay jaamu nag ba ba ma fi da nga dem àndaat ak man demaat ci say bokk kon kooku maa jalaka an qawmika yaa Moussa yàkkamti googa mu yàkkamti woon ba raw ay bokkam tax na yàlla delluwaat ko ci ay bokkam kon nit ki mën naa góorgóorlu tabaarakallaahu ba xëppale ay bokkam waaye mënoo góorgóorlu ba xëpp leen man ngaa góor góorgóorlu ba raw leen waaye boo wàññee say dox tabaarakallaahu mu gën a rafet man ngaa góorgóorlu sax ba gën leen ndax nga ne ci ne leen la ne waaye nag kenn mënta góorgóorlu ba génn ay bokkam man ngaa góor góorgóorlu ba gën leen de mais mënoo góorgóorlu ba génn leen koo mënta génn na waaye boo seel sa bopp ci moom alaaji keebaa loolu lañ fekk ci yow yal na la yàlla jàppale yal yàlla taxawu leen yal na yàlla dolli leen teraanga yal na yàlla dolli leen xéewal ay bokk luñ leen néew néew doole bu ñu àndee rek am doole ay bokk luñ bari bari ak lu luñ bari bërile bu ñu àndul rek néew doole moo tax kon ànd leen di yëkkatee ndoor ànd leen di tegandoor ànd leen di jàppandoor bâtiment bii de ku ko tabax ci say bokk xeeboo leen te ku ko tabaxoon biir Ndakaaru man cee man cee fayee ko xaalis bu bëri waaw kon nag jërëjëf alaaji Keba jërëjëf alaaji Taalibe yàlla na fi jàmm sax yàlla na fi teraanga sax yàlla na fi xéewal sax imaam jërëjëf yow tamit yàlla na la yàlla dolli ndimbal ci daara ji na nga yëg ne yaa fi yore bagaas yàlla bi yàlla kat bagaas yi ci kaw suuf yëpp moo ko moom waaye dafa ñu ko baxee ba mooy ñaari bagaasam mooy jàkkaam yi ak daara yi yooyu moom nee na bu si kenn dugal sa loxo maa ko moom moo tax ku ko yoreel ñaar yooya moo lay yore képp ku yore daara yàlla te yàlla tax kenn du la yërëm ku yore jàkkaay yàlla te yàlla tax kenn du la yërëm waaye nekk imaamu jàkk ku la gis yéene sarax yore daaray alquran ji ku la yée ku la gis yéene la saraxu mbubb laatal sa bopp ñaari bagaas yi rek la fi yàlla am ku ko téye mu téye la ku ko ku ko téyal tamit moom mu téye la jàpp la kon ndaw nga yal na la yàlla def mag yal na la yàlla jàppale neex na ma lool imaam yi ñu présenté yëpp ay xale lañ ay xale lañ te ñu ngi jëlee lenge yi ci mag ñoo xam ne tey nekkatuñ fi ñenn ñi buñ fi nexee tamit mënatuñ lañ daan doxalee te wax dëgg yàlla bu ñu amee ay ndaw yu leen wuutu ca loola ba seen xel dal ñoom kon fañ dem fañ jëm seen xel dana fa dal lañ baxi gannaaw tamit seen xel dana dal inna allazina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taxaafu wala taxsanu wa absiru bil jannati kuntum tuaduna ndax nahnu awliyaakum fil hayaati dunya wa fil aaxira yàlla na yàlla defal ko Baye Bachir defal ko kilifa yi fi nekk yëpp dégg nañ lool alaaji Keeba sa bis bi ñu fi daan def déewul waaye duma wax sax dekkil ko tàmbaliwaat ko rek tund wi ñoo ko soxla tàmbaliwaat ko yéen ñëpp ngeen jàppale ko rek jàppale ko daal ne déwén daal fasal yéene rek nga def ko ñun ñu ngi ci sa gannaaw ñu ngi ci sa ndeyjoor ñu ngi ci sa càmmooy ñu ngi ci sa kanam lépp loo soxla boo gëstoo gis ñu ci ñàkk nañ jot waaye su ñàkk jot yow doo ko xam yàlla seede na ko loo soxla rek boo gëstoo da ma gis Baye Laaji Omar bokk ki ñin gën fonk moo ñu boole woon ba tax na sa bis bii ba nga demee yëgal ko ko man la ci xebaloon kon bu demee nekkatu fi bis booba su ma sañoon mu nekk luy continuer ma ko ciy wuutu rek fekk bañ koy fekkee aljana yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm gëm leen ne gëm leen ko rek. bés bi na. waaw ma ne la eh, dama laa soxla. waaw dinaa ñëw sa kër. wallaahi ma woon a waxtaan yow dara lu du bi rek soxla ma ci yow dara lu du bés bi daal ci kàddu Balla Yomar ndigalam. may naa leen ci ndigal bu déwénee nañ ko tàmbaliwaat. incha allah waaw xaw cee tayal ma ne ko yow. déedéet daan ba pare daan def bés kër Moussa ak ñëpp di ñëw. nga fa ci suuf. déedéet ëpp naa def yëkkati ko rek. <laughs> waaw. dëgg la. waaw waaw dëgg la. déedéet ëpp war a yëkkati ko bu ko bàyyeeti. waaw waaw yow léegi demal nga génneewaat ko. génn mu ngoog mu ngoog kon nag jàppale na déwén mooy bis bi incha allahu na ñëpp jàpp soxna yi jërë ngeen jëf yal yàlla may leen njaboot gu baax. yalla may leen jabar bu barke hmm? ah waw mu ngoog kon nag ñu taalal loxo yi waxtu bi jot na ñu taalal loxo yi waw yene rek bu ñane lo yene yalla dana ko def incha allahu rabbi rek hmm. moom daal kenn ku ne li mu masih na ko ser rek kenn ku ne dal nag tan ñetti soxlo yu ko gën ñor mu ko ci xolam ta wax amin bu neexé yalla yalla dana ci defal lu kawé sa njortam man ma ko wax bismillah bismillah da'a safi ilahi muridu fil ilahi da'a safi ilahi muridu fil ilahi خليفة عن أبيه الحاج عبد الإله دعاه لما رآه خليفة للإله دا صفي الإله مريد صفة عن أبيه الحاج عبد الإله دعاه حال اضطرار بسر ذات الإله يرجو إجابة منه إذ كان باب الإله فإنه وإلهي وسيلتي للإله قلبي يفاض عليه فالشيخ فيض الإله وأرتجي نيل جاهي كجاه آل الإله وحملنا في علم عني بحول الإله فهو الولي التقي نقي سر الإله إني لو عبد عبد إذ كان عبد الإله أحب كل محب أحبه للإله مدعته بالخواف حبا له في الإله أرجو مديح له أن يروس عند الإله رمز الوجود وسر الأكوان داعي الإلهي الشيخ حامل رايا القوم بالله إلهي قد فاخ كل ولي لله عند الإله قد فاخ كل ولي لله عند الإله وقد غدا مختفو